kii di Madjeng Khary Dieng wujju na boromam eh, tey ji ki nga xamante ni moo fi eh, nekkoon ministre de l'intérieur ci atub 1991 eh, jàpp atub 1993 Madjeng Khary Dieng nag nekkoon fi tamit ministre des forces armées ci diggante ak atub 1993 ak 1995 moom mii di Madjeng Khary Dieng yamul foofu daal di occupé yeneen poste nekkoon fi tamit ambassadeur du Sénégal fële ca Gambie ci ay jamono moom nag mu ngi wujju borom tey ji te mu ngi juddoon fale ca dëkk bi ñu naan Kokki ci atub 1932 euh, moom nag mu ngi euh, làkk 88 ans.